acca kon jërë ngeen jëf yéen nga xam te ne yéen a suivre seen si ah. comme ni ma ko waxe woon rek avant pendant et après dañu leen toppal champion bi nga xam te ne bi moo nekkoon ci làmb ji war a bëre nekkoon ci wàccaay bu am solo muy Bébé Saloum tey moom lañ seet si fa seen waxtaan moom ma nga ànd ak ay doomu ndeyam de ñoo ëmb indi ma nga ca tus ba wala ndeysaan mais noo gisee CNG lim jugte fan yi sax sanction yu mu teg arbitre yi. waaw arbitre yi rek CNG daal moom su ma bañee soxor du ma leen wax leen ñaw waaye su ma bañul soxor dama naan sama yoon néew ci parce que lu dal mbër arbitre ko teg CNG du wàcc bind de. arbitre bay profité di bind ay ay ay avertissement mooy par di jàpp ay heure di di di sonal doomu aadama boo xam ne yow nekk la ñuy dagg yëpp yow doo ci gis lu dul dix mille francs deret bopp nag du mooy mbaggi borom lu waaye di def na ca seetlu leneen Malick Thiandoum mus naa lu am solo. mbër kul ma ku lekk ñaqam ta mayu la ko bala ngaa dee gis ko. ndax li muy daj daa métti. lu neex lépp ñu tere la ko. fu ñu la gis ni la waroo fii du sa place koo waxal ñu ne waroo wax ak moom. heure bi ngay jóg entraînement heure bi nga boo génnee ci nit ñu toog ñu ne fii du sa cër. te yow pourtant ñooñu ngay toogal li nga mel ñoo la ko def. nañ jël lépp yemale ko ci sport. te xam ne ñun ay doomu jàmbur lañ. ay entreprise lañ bu ñu fexee ba tëj entreprise ñuy semé dañuy bëri nañ ko seet ci seen bopp nag ñoom arbitre yi bi ñu leen tegee daan ñuy génn di ñaxtu kon bi mbëri yi génn di ñaxtu liñ doon mënoon nañ ñoo jàppale. ñoo ak CNG nag ñoom it neen lañ ndax ñoo far sama yoon newu ci utuma ci baalu utuma ci ñaan njégal sama yoon newu ci. man daal li may wax mooy Alioune Sarr na dem doyal nañ ci moom sëkk. Kolo Bombardier génn na di wax alinsaar génn di ko tontu kii Alioune mbër mooy tax ñu xam ko. mais buñ taxawee wax ñu indi ay problème Alioune Sarr na dem état ñu dara ba pare Macky Sall na foo ñu loxo yu entreprise yi ñu sponsorisé promoteurs yi mais dëgg ji nañ ko wax. ba ñu ma ku ma ci tëj ba ñu ma ku ma ci wax dara ndax ci teggin laa koy waxee haute voix nag xooluma ku ma ci gërëm xooluma ku ma ci mere. bañ na ko suñ groupe Dekki Lamb dañoo am sur écoute bu ñu nekk boo taxawee wax dëgg benn mag woo la ci suuf naan la. Seeka bul waxee nii mbër yu bëri ay défaillant lañ nangatuñoo wax ndax. <laughs> maa ko wax. Balla yi mi ngi ñuy tooñ. Hmm. Eumeu seen mi ngi ñuy tooñ. Modou Lo mi ngi ñuy tooñ Gris Bordeaux mi ngi ñuy tooñ Bombardier mi ngi ñuy tooñ laaj ma ci naka. ndax lan danoo war a bokk ñoom juróom ñooñu. Hmm. ñaan audience ci Macky Sall ndax man su ma ko defee du ko am. ñoom ñooñu ëpp dayoo. Hmm. ñooy suñuy VIP yi du suñuy mag. nañ wax Macky Sall mu koo soxla buñ toogee waxal askan wi waa làmb li ñu ñor ndax dañoo bàyyi yitte yëpp ndax làmb nañ ñu waxal loolu ndax ñoo fa jot bu ñu fa jotoon waxal ko suñu bopp. nañ ñu waxal na fi Alioune Sarr dégage jóge fi. Alioune Sarr bu ma juddoogul ci làmb laay dégg Alioune Sarr ba maa ngi bëgg a màgget ci làmb di dégg alinsaar Sarr dafa doy. la moo tax Macky toog ñaari mandat ñoo na fi jóg. Abdoulaye Wade toog fi ñaari mandat ñoo na fi jóg. waa léegi benn nguur da nga koo mën a ñiit beneen bi li ma gën a metti mooy liñ nawloowul mbër Alioune Sarr tey bu ma ko soxla woon ma ko gis. bi ma feebaree ñu ne maa opération maa faj sama bopp yaa ngi dégg maa ngi bëree gaañu sama genou maa ngi faj sama bopp ak yeneen ak yeneen te may dagg assurance gis nga dekki làmb mbër mu feebar ñu dajale li ñu am. waa groupe dekki làmb dem dimbalee la ko mbër mu am xew ñu dem taxawu la bi kaas kii di def lu nekk ngir làmb ñoŋ te pourtant bu dee ñaar téeméer yi mbër lañ fa juróom ñett fukk yëpp duñ ay mbër bàyyi nañ ñu ngi ci leneen xoola mbër yi léegi ku immigré ji toog fa. làmba yi bëgg a yàqu. MMA bi ngi bëgg a ñëw récupérer làmb dem yoonam ndax tubaab bi juru ñu jënduñu te bu ñu demee ñuy fay lu baax moo ñu gën a yéene jàmm Alioune Sarr mi ngi yàq suñu làmb ji na dem jox ñu suñu yëf. nit boo koy jiite da koy bëgg ñun bëggatuñ. bëggatuñ doy na arrête waxuñ defu de mais dañoo doyal parce que mi ngi ñuy teg luñ attanut arbitre yi nag moom bu leen lii dalul woon ma xam ne ñun ñi doon ñun ñuy bëree duñ ay nit. mais kon yow su ma la kon yow da nga ànd ak CNG ci lim teg arbitre yi déggoo ma ne su ma nee ñaw dañ naan kii dafa soxor mais konoon ñaw laay wax. <laughs> dañ ma ko dund man. te gis nga ni sama combat franc. CNG li ma leen di wax moo leen métti ba tax xool dañ may mettre en garde xoolu policier yi fu ma daw bëgg a jëm ñu kar ma pour lan ma bëggee dem samay supporter bu wane sama public sax ñu kar ma ndax lan CNG moo leen jox code boobu gis nga boo duggee CNG bañ boo boole ñu jox la code boo dul décoté ji ma jur bu demee CNG waxulul mbër yi dëgg waxul leen lu leen di jàllale waxam safuma du ma dugg. waxuma laa keneen Alioune Sarr dégage moo ku ko yaakaar na dem. ciy teggin na dem ñun doyal nañ ñun mbër yi ñuy jiitee na doy parce que jaay perte du tey wàññi sa bénéfice. Mhm. ñaata licencié moo fi ne. li muy dagg organisation CNG mais weer du dee saison jeex ba ñu woo ñu justifier ñu wan ñu lii fii la dugg lii fii la dugg lii fii la dugg no da ngay pare rek ñun di la benn PV Bébé Saloum jàngut lañ ko ci wax kiiwuñ ko léegi bu demee CNG euh, euh, làmb viole loolu pour ñu dagg xaalisam. mais lan moo tax woowuñ ñu wax ñu ndax li ngay nopp di jàpp bokkut ak li bët bii gis. am na lool làmmiñ dina ko laal am na loo xam ne dañ koy misaal rek dee su ko laal. man duma ma dépassé mag waaye Alioune Sarr na dem. kon kàddu yi dégg nañ ko. Macky Sall bu dee yaa nu jiite te am suñ carte ñun di la fal ak folli dañoo am ci yow cër jëleel ñu fi Alioune Sarr jox ko ñeneen. ñun doyal nañ quoi. doyal nañ te xol lañ koy waxee waa dekki làmb ma yónni pour ma wax ko nag mbooloo kàddu mbooloo laay waxee.